mbokk yi salaamaaleykum àdduna tey carrapide point com ak buzz point seen amaat mbégte ak bànneex jàkkaarloo ci seen émission Carrefour des Stars tey nag ma changé angle ñëw ci koo xamante ni bii tey kenn dootu ko présenté ci Sénégal ndax booy seetaan TFM di seetaan mboonal di ko gis muy def yu baax yooyu yooyu yore xalam bi kooku mooy Baro tey moom laa fi am invité. Eh, nek ci wetam bu may xalawal may def sama présentation bu neex lool waay xalama neex tay nak ñu fas waxtaan ci lu bari xalam jóge ci xalam dugg ci guitare dugg ci guitare dugg ci yeneen instrument yoo xamante lay def tay nak ay surprise laa leen indil ndekete àdduna xamuñu woon baro ndax ci xalam rek lañ ko xamee waaye tey baro day génn ci xalam ci duma leen ko wax duma def lu dul bàyyi mu nuyoo ma daal dugg ak moom ci waxtaan bi mu won bagage nuyu di la ah lay fay di la di la gërëm ak déplacement bi nga def di ñaan yàlla na ngeen am jamorek. rek. parce que ñu mel ne yéen il faut ñu leen di ñaanal ñu am jamo gudufan fan ak dal. gu yaram daal parce que yéen ay yi di jàppale askan wi di jàppale réew mi daal. voilà Baro nga tegal ma xalam mi tuuti ma waxtaan ak yow après ñu ñëw ci xalam voilà baro mm-hmm. tey fi may ñëwee mooy que nit ñaa ya, ngi lay gis TFM ngay xalam mm-hmm. ku ne naan baro baro baro comprendre <laughs> nga mais tey exactement ki jàkkaarloo yow tey fii xamul uh-huh, uh-huh, uh-huh. kan mooy baro man mi nga xamante ne tey maa jàkkaarloo yow mm-hmm. nekkal fa askan wi war leen a laajal seen laaj ma bëggoon xam su ma la laajee kan mooy baro loo ma wax ah baro mooy ki nga xamante ni mooy taalibe la ci ci musique aussi ah parce que mooy artiste bi nga xamante ni toujours euh, dafay jéem a bégal doomu aadama yi mhm. waaw mhm. maa ngi di jéem a bégal doomu aadama yi daal parce que musique boo ko dee def bu ko nit dee déglu xelam day xolam day neex mhm. Euh, wax dëgg yàlla moo tax wax dëgg yàlla depuis bu mu nekkee xale daal man musique euh, moom laay fooyee moom laay kiiyee moom lay daal moom daal mooy nakk suma dund daal. Mhm. Mhm. voilà. ok euh, à loolu. Mhm. damay ñëwaat ci leneen. parce que baroog xalam kese lañ ko xamee. waaw. <laughs> te am na yeneen yu nekk ci suuf après nañ ci ñëw ci kanam. waaw <laughs> lan moo la dugal ci xalam. xalam comme li ma wax rek. amoon naa sama sama benn maam boo xam ne da doon xalam. Mm-hmm. mais moom defu ko woon métier nag. defu ko woon métier. non non. da ci foo. daf ci doon waxtaan rek ba mais musaan toog nag dëkk ba Fuuta. Mm-hmm. Euh, bu payi musaan toog nii añ lekk wala reer ba suur. Mm-hmm. Euh, comme ni ñuy defee ngonal ñoom nañ noonu noonu lañ ko doon defee quoi moo tax bu ma gisee ngonal loolu daf may tax ko suma suma cosaan maam yi ko quoi. Mhm. ñu toog suuf garab gii nii teg ataaya. Mhm. ñi di lakk yàpp. Mhm. moom bu ko defee moom day génnee xalam. mais pour pourquoi que jotaay boobu fu mu am rek xalam bokk fa. waaw autant boobu boobu télévision euh, amul woon. rajo amul woon wala rajo bu amoon sax par kii la par kii par kenn kenn ngay gis mu yore ko dëkk ba. dëkk bu bu ko defee nag xalam bi ñoom xalam bi la ñuy waxtaanee daal moom moo doon seen instrument boo xam ni moom lañ doon waxtaanee waaw moo leen doon wettali daal waaw mm-hmm. ah, ah, loolu. léegi ñëwal ma ci xalam bi. Mm-hmm. nga ni ma sànq yaa ngi may nettali lu tax nga taamu xalam. waaw xalam donc man bu ma nekkee xale. dama bëgg musique lu jëm ci musique dama ko bëgg. Mm-hmm. Euh, moo tax moo tax loolu rek laa doon fooyee euh, am naa sama mag bu góor nag moom da doon xalam moom tamit mais defu ko woon métier dama ko doon fekk muy jëf del xalam bii di ci xalam euh, su su su teg su su toogee di xalam daal man damay ñëw jage ko daal jage ko may may déglu rek bu demee fenn tuuti rek ma ñëw xalam bi après moom bu ñëwee man ma su ma seenee muy ñëw ma daw <laughs> ma bàyyi ko. Hmm. waaw <laughs> mujj gi après sama papa ne ma comme yow da ngay defar sa xalam bopp moom bu ko defee yow nga ci ah hmm. <laughs> waaw. léegi yow nga defar sa xalam bopp. léegi après ma ma njëkk jël benn pot boobu mos mënu ma defar xalam sa hmm. benn pot laa njëkk defar mu def ci ay buum. nek comme voilà tëggu si xalam waaw. Eh? Eh? Eh, dañ ko doon xalam. day mel na xalab léegi sama papa ni mu nag léegi mhm. da ngay da defar sa xalam bopp après ma dem euh, ma defar suma xalam bopp mhm. ma nekk ci di jouer di morceau bu ma dégg rajo nag ma ma ma koy jéemu si nekk ci di kërti kërti rek di kërti kërti <laughs> di kërti kërti di di bo bo mun ko ni comme léegi après hmm. yow moment bi nga tollee ne hmm. nga doon jéem a defaral xalam sa bopp ba defar tukku sa ngalam est ce que hmm. après ah mujjee ngaa defar sa xalam bopp waaw mujjee naa defar sama xalam bopp nan ngay defaree xalam xalam dama dem ci parce que ñun dañu am ay quelques familles yoo xam ni ay lawbe lañu quoi dañuy yett xalam dañuy yett xalam waaw léegi lii lan la lii këll la. këll waaw këll këll bi dañ ko yett. Ah, après waaw dañ ko yett law bi yett ko. Uh-huh. Euh, kii ko daal yett ko boobu boo pare. Uh-huh. man maa man maa foor ni xalam bi. léegi waaw après bi ñu ko yettee nii ba mm. pare am na mm. lu ma gis ci kaw nii avant pont yi ñëw li ci kaw lan la. Euh, di li der la. der deru nag deru nag <laughs> waaw. Ah. deru nag la deru nag mooy ne ci kaw waaw pare nga daaj ci pont yi waaw daaj ci pont yi bu mu tourné xalam bi nii waaw ah. gis naa ci benn benn benn benn bant ba pare waaw bante bi bant lan la nu mu tudd bant lii mu ngi tudd kii ah, xamu ko ci olof mais xam naa ko ci pulaar bani la tudd ci pulaar bani la tudd ci pulaar waaw waaw moom daanaka ak bant yëpp benn la bi bi ak benn ba gis tamit affaire bu ndaw bu mel genre leket leket la leket la waaw léegi moom lii lan mooy mm-hmm. njëriñam ci xalam bi leket bi maanaam boo ko montee ci xalam bi mm-hmm. day tax sonorité bi dafay dafay résonner mun na résonner normal ah, mooy doon base bi daal <laughs> waaw mooy doon base bi corde yi mm-hmm. ah, corde yi ay caas la ay caas léegi dama gis ñu mel ni dañoo ràbb ay caas ci biir ba pare soo ko takk waaw mun maa ko rab. lu nga def ko noonu. <laughs> bu ko defee son son bi dafay mun a résonner ko ok dafay mun a résonner léegi ma gisaat leneen mooy que dafa am ay caasu ndaw. waaw waaw. te bu si nekk bokkul lu muy génnee. waaw waaw loolu. Ah. niñ koy niñ koy accordé la quoi. Ah. xam nga caas bi caas bi. Mhm. boo xoolee maa ngi ko rab fois. quatre fois waaw. bi euh, yi yëpp quatre fois la. Uh-huh. mais bii mooy deux fois. bii fois waaw. ok moo tax. Euh, mu hmm, mel noonu voilà hmm. ma gisaat tam li mel ni ay waaw lii Wali, car yi moom lu mu doon waaw lii mooy der yi nga xamante ni ude yi ñoo ñoom la ñuy awee voilà moom la ñuy def téere yi ah. donc euh, ci ñoom laa dem ñu daggal ma ci ah. ma fay leen ñu daggal ma ci léegi lan moo ko téye ci ginnaaw euh, waaw loolu dama ko takk noonu waaw dama ko takk noonu quoi du rocceeku ni ko takkee nii non non du rocceeku dama koy takk zaaru takk rab boo xam rab la ko rab lay doon encore mhm. bi dégg naa xalam alul mais jinne la lu tax ñuy wax loolu waaw xalam moom wax dëgg yàlla ci ni mu ko déggee nii ci maam yi depuis ci maam yi cosaanu jinne yi la jinne yi ñoom ñoo ko moom xam moo tax en général boo koy booy xalam guddi yow rek da da ngay daal di sentir jage nañ la xalam fi non non nekkee ñaar nit ñetti boobu amul problème mais bu fekkee guddi guddi man kese ah en tout cas dinaa sentir jage nañ ma man de fii fi ñëwee sama jaar jaar voilà baroba tey ci xalam. Mhm. Euh, liñ ci war a def dafa bari. waaw waaw waaw tey. Mhm ma ñëw fi indaale nag loo xamante ni bii nag surprise la waaw uh-huh. ndax damaa tànn sama ñeenti son yoo xamante ni bii tey uh, waaw uh. foo jaar nga xalamal ma ko amul benn ndax mën nga ko wala mënoo ko waaye daal man indaale def naa daal samay recherche indi samay ñeenti son yoo xamante ne am na xalam muy ban ak ban indi naa son bi nga xamante ni xool seddate bu Youssou Ndour boobu dañ ma xalamal léegi uh-huh. mm? uh-huh. su ci boobu nga xalamal ma njaram lambul su ma ci boobu nga xalamal ma juboo uh-huh, uh-huh. Ah, su ma jógee ci boobu uh-huh. ak ban sax laa ci war a kor jor joge ma baye ñet yoy wala ak bobu ñu naan ndongo daara bo mokale ba sa daara wala muy kor jor joge ngor kor jor joge <laughs> kor jor joge nak mom sax maam yi sax mom lañ gëna xam parce que xalam bu yag mm. la waaw bu euh, yag euh, ah, mhm. mhm. ah, mhm. la salinto salinto deug yalla vie sambu jabar sambo wax deug yalla moko gëna siwal fi sénégal wax deug yalla deug la légui baro euh nañ dem ci son yi ben par ben waaw ba nañu njëkkee sax ah. nañ njëkkee e ci e, Youssou Ndour xool sedd na ma xool léegi nag gars yi ñoo ngi nii nag tey ngeen di xam Baro da ngeen ko daan gis muy xalam nii nii nii rek tey indi naa ko ñeenti mu xalamal ma ko ngeen déglu xool lan la mën acca sedd <laughs> Wow, wow. tegal foofu sa baaraam <laughs> voilà ba tey baro ah. des na mhm. man ak yéen la ak baro joué ah. na benn son mu des sama ñetti son mhm. lépp ci biir émission bi de ci mhm. xalam acca léegi baro xam na laa bëgg waaw nañ dem ci njaram lamb ah ma xool waaw acca sa baaraam acca léegi mu des sama ban mu des sama juboo bu ñu ah, voilà Bom bom de la Chihuahua. bom bom de la voilà léegi nag ñu dellu si démb. démb foo ko déggee. am na xalam yoo bari yo xamante ni buñ ko xalamee rek da lay yóbbu ci démb. wallaay waaw nga xalamal ma ci benn muy. ban nga may xalamal. Uh, Salinto. Salinto waaw ñëw ma ci Salinto uh, tuuti. après ñu dem ci ci ci ci kii bi nu mu sax. mooy bi ma la waxoon sànq. mu tudd sax euh, Kër Dior Diengé. Kër Dior Diengé. ayca ah. mooy ndongo daara boo nappalee. boo mokkalee verset daara ayca